si loolu du mu si wet benn yoon maa ngi si ànaax euh, sama naataango Buur Sine Coumba Ndoffène Diouf ma bàyyi ko mu nuyoo ñu daal di commencé waxtaan bi Buur Sine aleykum salaam astu maa ngi lay nuyu di nuyu itam mbokku yi nga xam ne kon ñoo ñuy bàyyi xel ci sene info point ak sene ak international ak suñu différentes plateformes yi comme ni nga ko waxee rek di bu baax kon di ànd ak euh, yéen ci lii di yor yoru sene info si loolu dinañ am cinq points yoo xamante ne nii dinañ si waxtaan di tàmbale waxtaan bi nag si mbirum TER bi nga xamante ne nii amal na benn coow ñu laajte ndax Sénégal moo ko moom wala réew mi di France ñoom ñoo ko moom deuxièmement ñu daal di waxtaan si location yi nga xam ne nguur gi mu ngi doon mu ngi si doon ndox ay jéego ngir ñu daal di koy wàññi ba tey tamit gisuñu si dara ñu jàll si conférence de presse su ñii di rappeur yi nga xamante ne nii ñu ngi exiger pour ñu libérer seen naataango bi di nit dof ñu waxtaan si mbirum Mollah Morgun ak kii di Ousmane Sonko bu ko defee ñu daal di jeexale ak suñu gaynde yi fas yéene jàkkaarloo ak réewum Madagascar si demi-finalu CHAN bi euh, Bour Sine Coumba Ndoffène ñu daal di commencé si waxum terre bi nga xamante ne ni ñu ngi naan Sénégal ko moom wala réew mi di France. waaw asel comme ni nga ko waxee kon euh, dañuy tàmbali waxtaan rek coow li nga xam ne moom moo am ci train express. Euh, Euh, régional bi xam nga nag train express régional bi biñ ko fi euh, defee que euh, léegi am na at daanaka bi mu duggee en service ba léegi mais nag dafa fekk fi mu nekk ni muy doxee maanaam déficit la maanaam booy xool koppar yi nga xam ne moom la ñuy am ci exploitation bi nguurug Sénégal mën a sax fay ñi nga xam ne kon ñooy liggéey ci société d'exploitation bi ñu naan SETER boobu le sociétés d'exploitation coow li sax booy xool foofu lay jógee ci ab contrat boo xam ne kon eh, ñii di waa SNCF ñi nga xam ne ñoom lañ dénk exploitation bi à travers société SETER bi ab contrat boo xam ne dañoo bëgg eh, nguuru Sénégal eh, signé ko ak ñoom fi mu nekk nii coow li coow li coow li coow li fa la nekk kon ndax booy xool kon déficit boobu dafa tax ba nguuru Sénégal yoreel ñi nga xam ne kon ñoom ñooy SETER Eh, ay koppar eh, ay milliards kon yu xaw a takku léegi nag ngir daal eh, ci ci ci ci kii boobu nag ci coow loolu nga xam ne kon mu ngi am ci diggante ñii di waa kon SNF SNCF à travers SETER mhm. ak itam nguuru Sénégal ci xëccoo boobu mu am ci nag beneen société boo xam ne ab société française la ba léegi bi ñuy woowee mooy Méridiam mhm. ñoom nag dañoo proposé Sénégal pour jël concession bi Euh, ci lu toll ci vingt cinq ans ba pare nag loolu nga xam ne moom mooy déficit bi nga xam ne nguuru Sénégal euh, ci ndoddam la nekkoon ñoom ñu jël ko euh, en charge xam loolu tam loolu loolu dafa gën a attiser li nga xam ne nag moom mooy looloo waral journal bi di Figaro daal di publier di xamle ne terre bi ñi di askanub France ñoo ko moom en fait man moom ci ci moom bi moom li ma mën a jàpp mooy li nga xam ne ñoom la sama autorité réew loolu la wax gis nañ coole bi jogee jógee euh, ñii di euh, kii nga xam ne moom mooy euh, ministre bi nga xam ne kon moom mooy directeur général bu bu SENTER génn na def ci li nga xam ne moom mooy ab communiqué. daal di firndeel ni Sénégal moom moom teer li nga xam ne moom mooy wagon yi moom mooy raay yi moom mooy station yi lépp loo xam infrastructure la. xamle na ne kon nguurug Sénégal moo ko moom à cent pour cent itam ki nga xam ne moom mooy naataangoom di euh, ministre euh, du commerce euh, chargé de la communication muy Abdou Karim Fofana moom it génn na ne bu baax a baax ne kon ter bi nguurug Sénégal moom moo ko moom a cent pour cent kon problème bi li ma doon wax sànq ci au niveau ci contrat d'exploitation bi kon foofu problème bi nekk sànq maa maa ngi maa ngi yemoon ci diggante kon société boobu euh, mairie jàmm bi mu proposé li nga xam ne moom mooy état bu Sénégal euh, ngir euh, vingt cinq ans de concession boo xam ne kon day jël en charge li nga xam ne moom mooy déficit boobu loolu nag dafa tax ba waa SNCF loolu tam merloo leen. Mm-hmm. xam nga léegi bi ñu buggee nag Sénégal signé beneen contrat SN cool yi nag foofu la nekk. ci contrat boobu nga xam ne euh, SNCF dañ ko bëgg maanaam euh, Sénégal euh, Sénégal kon signé ko coow daal fi mu nekk nii fi mu nekk loolu coow li kon nga xam loolu bi mu nee nag mhm. article kii bi jóg bu nekk naan teer bi teer bi article Figaro bi Sénégal moom Sénégal moo ko Sénégal moo ko moom France moo ko moom. waaw en fait li ñu mën a jàpp man daal li ma mën a jàpp. waaw mooy li suñu suñu gouvernement. waaw nekkul ne waaw nekkul France dañuy tëb rek ne lii rek ma ne Euh, xam naa ne nguurug Sénégal yoral na xaalis euh, société bi euh, di SETER société d'exploitation bi nga xam ne SNCF. Mm-hmm. ñoom ñoo ko moom ba léegi xam naa ne yoral nañ leen ay xaalis mais taxul ñu ne bi. France moo ko moom. Mm-hmm. TER kon daal li ma si mën a jàpp mooy TER bi. Sénégal moo ko moom infrastructure daal. dañu jàpp Sénégal Sénégal moo ko moom à 100 pour cent Sénégal moo ko moom à pour cent léegi nag li ñu leen di côté exploitation. Mhm. côté exploitation bi bi la nekk quoi waaw. d' accord jërëjëf si yooyu lay leeral ñu daal di jàll rek si mbirum location yi nga xamante ne nii. Euh, nguur gi waxoon na ni euh, début janvier lañ ko waroon a wàññi ba tey tamit askanu Sénégal gisul dara. waaw euh, loolu nag euh, booy xool euh, wax nga dëgg mais dafa am lu ci bees daa am lu ci bees euh, parce que xam nga nguurug Sénégal biñ annoncé ne dañuy wàññi location yi ñu ngi xaar nag ba léegi gis nga wàññeekuñ ko ñu ngi xaar ñu wàññi ko comme ni nga ko waxee wante au début dañ ne woon dañuy amal li nga xam ne moom mooy daal projet de loi loo xam ne législation lay doon ñu jaarale ko assemblée nationale. Mm-hmm. tey voté ko loolu. mais dañoo dem ba si biir ñu gis ne xanaa peut-être loolu day yéex. loolu tax nag kon euh, ba ñu changé démarche léegi nee nañ nag kon dañuy amal li ñu ab réglement maanaam njiitu réew mi dafay jël li nga xam ne mooy ab décret décret boo xam ne waaw euh, balaa mu koy jël nag balaa mu am boobu décret na ci waxtaan ak li nga xam ne moom mooy euh, conseil mhm. constitutionnel ñu ci waxtaanee nag kon ñu xool ñu amal ab décret boo xam ne kon moom mooy indi application ñu mm-hmm. wàññi li nga xam ne moom mooy moom euh, mooy mm-hmm. waaye lu ci mënti doon comme ni nga waxee instant moom yàkkamti nañ ko lool <laughs> yàkkamti nañ euh, na métti na trop fii ci fii ci fii ko mm-hmm. kon nag le fait que ñu gaawal ko nguur gi sax peut être lool la bëgg xëy na ndax booy xool côté législation affaire day faral di yàgg dañ ko waroon jaaree législation ñuy jaar assemblée ñuy xaari kii loolu day gën a yàggal mbir kon nag mën na am peut être lu gën a gaaw lañu bëgg ba tax euh, ñu jaarale ko fii kon ñu ngi xaarale ba xam ñuy xaar lan moo siy allah. si loolu ñu daal di jàll si conférence de presse bi nga xamante ne nii rappeurs yi amaloon nañ ko démb rappeurs yi ak euh, ay activistes amaloon nañ ko démb pour di exiger libération seen naataange boobu noonu di nit daf si loolu ñu gis kii du fumbalaat daal di fa yëkkati ay kàddu di xamal ne saaga bokk na si rap loolu nan nga ko mën a jàngatee. waaw asu comme ni nga ko waxee ab conférence de presse la boo xam ne ay naataango rapportu ki nga xam ne moom mooy mortal Talla Gueye mm-hmm. ñu gën koo xam ci nit dof ñoom ñoo ko amal bésu démb ngir laaje lii di libération ñu fàttali rek ne moom li waral nag ñu teg ko loxo moom mooy dafa amaloon ab live ab vidéo live boo xam ne daal euh, da ci doon wax peut être meram lu ko naqari ci réew mi wante nag da cee boolewoon ay saago yu ñaaw a ñaaw <laughs> bi daal mu ngi doon wax wala na ci yoo xam ne daal saaga yu doy la mu ngi ko doon euh, yëkkati di ko teg euh, mën nañ ne peut être si ñu ñuy jiite affaire mm-hmm. yooyu di ŋàññi itam li nga xam ne moom mooy justice Sénégal ak euh, mm-hmm. yi ni mel bi loolu weesoo ci lañ ko teg loxo ci la ko yoon teg loxo jël si ko si ba si biir këram jël si ko waaw mm-hmm. mais nag peut être ñoom xaaruñu woon ne dinañ ko dinañ ko si def ay mandat de dépôt parce que booy déglu sax ki nga xam ne Euh, moom mooy euh, Simon mhm. mu ngi naan moom jotoon na wax ay autorité ba ñu naan ko euh, jàpp nañ ko mais daal dinañ ko bàyyi affaire yooyu mhm. mais nag après loolu daf leen bett la fait que ñu jëw teg ko mandat de dépôt daf leen daf leen bett léegi nag en tant que nag ñoo xam ne ay naataangoom lañ ñu nekk si même milieu bi mhm. jàpp nañ ne yoon la ñoom ñu génn def ab conférence de presse ngir sàkku ci ñi nga xam ne ñoom ñooy autorité yi kon ñu bàyyi ko wante itam yaakaar nañ ne bàyyi boobu dina indiwaat jàmm ci temps ci tension sociale am réew mi deux mille instant tension sociale yooyu yëpp tey ñu bàyyi woon ko peut-être dina def benn décrispation dina tax tension bi dina gën a wàññeeku. waaye comme ni nga ko waxee dañoo nemmeeku ci biir eh, li nga xam ne moom mooy conférence de presse boobu fu mu laal jël ci kàddu waaw waxit ne. maanaam dafa bokk ci rab ak hmm. euh, yi ni mel wante ah saaga moom bokk na wala boog classe man classe xamoon naa ne bokk si rab peut si xam dara si <laughs> rab. Euh, saaga moom euh, duñ ko soutenir fenn parce que saa hmm. saaga dafa nekk loo xamante ne nii rafetul d'ailleurs même dañuy wax rap mais du xale yi kese ñoo koy déglu mën nga di romb kilifa mën na romb wala dara hmm. kon jàpp nañ ne saaga nekkul loo xamante ne nii dafa rafet kàddu gu ñaaw la boo xamante ne nii nit da koy génn si gémmiñam jox ko jox ko keneen saaga moroomam wala saaga fu ko neexee kon nag euh, loolu saaga yi moom jàpp naa ne comme ni nga ko waxee rek clash clash moom xam nañ ko si rab waaye ay saaga moom ah si man moom personnellement damay naan saaga bokk ci. waaw te booy même xool sax euh, contexte bi mën nañu peut-être contexte bi dafa xaw a contexte bi nekkul na nekkul contexte fii nag xam nga Sénégal daa nekk réew xam ne boo waxee sa xalaat sax. ñu jàpp ne da ngaa far bi wala alors que c'est foofu mooy maanaam contexte bi mu ko defee mën nañu nekkuloon di rab maanaam nekkuloon di rab peut-être benn contexte bu fekkoon peut-être ci benn par rapport ak Fou mu wax foofu ko defee nekkuloon di mm-hmm. eh, wéy nekkuloon di rab benn vidéo live la doon def di mm-hmm. wax di ci wax Sénégal comme ni waxee kii am donte nag Fou Malade loolu mu wax Euh, gis-gisam la gis na ne waaw gis-gisam la gis na ne peut-être rappeur mën na saaga ak mais it war nañu même saaga yu ba amee war nañu bàyyi xel ne Sénégal lañ nekk société sénégalaise ñu am suñu ay réalité mm-hmm. loolu lépp tam ñu war di ko euh, bàyyee xel euh, mais nag de toute façon de toute façon loolu bokkee it pour ñu jàpp moom jàpp nit ak yooyu moom yéeneen ko kenn ak nga kaso dafa métti kon yéeneen ñu jàpp kenn ñu ngi ñaanit ñi nga xam ne ñoom ñooy autorité yi ñu bàyyi ko mu génn yar ko waaw wax ko daal kii ko bàyyi peut-être moom it dans l'avenir dina xam ne muy ni muy doxalee ni muy waxee beneen yoon mm-hmm. bu ko defee beneen yoone tamit dina daal di xam ni muy waxee si loolu ñu daal di jàll si kii di diggante Mollah Morgun ak Ousmane Sonko nekk ay photo yoo xamante ne nii daaloon na di ko jàllale di wane ay image yoo xamante ne nii rafetul benn yoon di ko jëmale si Ousmane Sonko si ginnaaw loolu tamit am na ñoo xamante ne nii daan leen di génne wane carrément ba mu leer nii photo yooyu ay montage yu ñu def la Mollah nag di xam le ne euh, dañ ko naxoon ginnaaw ba mu ko génnee def na ab laayam daal di wax si kii di Ousmane Sonko wax leneen par rapport ak euh, débat yi mu daal indi daal di changer discours mm-hmm. wane ay photo waaye démb nag ñu gis ko mu def ab euh, bind si page am daal di wane ne dafa juumoon ki ko yónnee photo yi moom moo ko nax loolu ban jàngat ga ne ci mën a indil tey waaw soxna Asel muy ab revirement mun nañu revirement peut-être gannaaw bi mu génnee euh, wane ay images compromettantes comme ni nga ko waxee ay photos yoo xam ne euh, day wane dañ ci wane ku summeeku ak yi ni mel euh, position yoo xam ne daal jekkul daal ni mel ak yi demee noonu mais am na ñoo xam ne peut-être ay professionnel d'image lañ bi ñu defee loolu fësal ne mbir mi montage la mais man damaa gis ne ci biir moom dama cee gis ne maanaam moom Mollah Morgan moom moom mag mu day ni Mollah Morgan lu muy lu muy lu muy xoole bañ koy nax di ko wan ne nga ah, image yi nangam mm-hmm. nangam foofu xaw naa si am doute mm-hmm. parce que xaw naa si am doute parce que mu loolu pare xam nga ñëwaat taxawaat ci kanam Sénégalais surtout nga ci réseaux sociaux nekk magum jëm te bu ñu la joxee photo. Mm-hmm. pour man balaa ngay publier photo boobu war nga def say démarche. même bu dul photo sax information boo jot nga war a. da nga ko war a kiiwaat nga jàngat ko def say vérification seggaat ko ba mu leen ngay doog ko teg si table bi ci biir loolu sax da nga may loolu nag gis nga loolu maanaam lu mel noonu xaw na infiltré sax tey suñu milieu suñu milieu mm-hmm. euh, mm-hmm. sa information d' abord war nga jaar trois war nga collecté boo collecté mooy collecté mm-hmm. a am importance ci information mooy étape vérification boobu boo defee sa vérification ba pare ci ngay doog a information donte du journaliste comme ni nga ko waxee nekk na ci milieu kii bi dégg na tey technologie toll na foo xam ne nit mën na def lu ko neex. Euh, côté boobu tamit nga baal na parce que loolu booy jàng école loolu lañ lay jàngal nga segg say information balaa nga koy publier mais léegi ñuy toog si télé bi yëpp euh, du clash nag mais ñuy toog si télé bi yëpp duñu ay journaliste léegi da ngay gis genre koo xamante ne nii métier bi neex na ko mën na wax ñu jël ko teg si kanamu plateau yi te formation bi dafa nekk. dafa am benn côté boo xamante ne nii da koy mottali si journaliste bi même soo nekkee ku mën a wax di nga gis nag ku def formation ba pare du mën a présenter ay information comme ni ko journaliste di defee mais maanaam formation bi da si am njëriñ te léegi boo gisee ñu bëri dañuy ñëw toog si ba gën di wax si sujet yoo xamante ni maîtriser wuñu ko man dama jàpp ne problème bi yëpp foofu la. waaw même à travers euh, nga wax noonu maanaam euh, ci ci wetu journaliste yooyu ak formation yi ñu war a ñi ñuy woowee influenceur ak yu ni mel ñoom Mollah Morgan ak yu ni mel nag côté boobu lañ leen di classé quoi côté influenceur yeeg activiste yeeg euh, activiste yeeg yu ni mel mais ak nu demee rek man euh, gis naa ne tey jamono toll na foo xam ne euh, boo yoree information war nga ko vérifier information ak sur lu concerné xam nga ku toll nii peut être ma Sonko si dëkk bi quoi tey boo yoree information même bu ma Sonko sax looy mënti publier si nit nit ku mu doon. boo yoree buñ la joxee nii la kii la vérifié ko vérifié ko vérifié ba am la ci pour cent nga doog koo nga doog publier mooy mooy li ma la parce que am naa ci ay doute parce que euh, loolu bi mu amee tam gis nañ euh, ku bokk parce que muy sax toog génn xamal ne carrément waa ji jotoon na daje ak ay responsable politique xanaa peut être bu waxee loolu ñu farak yeneen ñu farak ñu farak euh, peut être camp pouvoir bi la. Mm-hmm. tey jox wax wax di proposé nañ ko xaalis bëri ay millions millions millions xam nga bu waxee loolu. Mm-hmm. kii itam def retournement situation bi. luus na daal situation bi luus na même nu mu mënti demee daal réseaux sociaux yi war nañ ci def ndànk ndànk ndànk ndànk ndànk léegi Mollah Morgan génnaan na itam euh, baalu nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko moom principal concerné bi nag ko si. Mm-hmm. Euh, ñu xool daal ba xam wane na fi mujjee ki gëtëm <laughs> ci mbir moom. ni wane di mujjee ak ay gëtëm euh, boo si ñu daal di jeexalee rek ak suñu gaynde yi nga xamante ne nii ñu ngi waajal ab demi-finale ak waa Madagascar. waaw waaw soxna comme ni nga ko waxee eh, moom mooy eh, CHAN di championnat d' Afrique des nations suñu gaynde logo yi def ci jéego yu am solo dem ba yegg li nga xam ne moom mooy demi-finale tey bi ñu war cee jàkkaarloo kon ki nga xam ne moom mooy eh, Madagascar ñu leen di ñaanal nag ñu am ci ndam lu rëy ba sax incha allah dem ba jël final bi wante lii dafa doon loo xam ne ganaaw li ñu qualifié dem demi-finale dafa nekk loo xam ne tam lu rëy la ndax booy xool depuis 2009. lañ gëj a am résultat bu mel ni ki chat dem ba xam ne fi nga xam ne nii euh, moom mooy euh, demi demi final kon euh, comme li ma rek ba fii daal wane nañ ak jàmbaarte ñoom ak Pape Thiaw mi nga xam ne moom mooy seen sélectionneur léegi jàmbaarte boobu nga xam ne nag amoon nañ ko depuis le début moom la ñuy xaar ñu yokk ko bésub tey bi ñu yokk ko ba daal jël li nga xam ne moom mooy final championnat d' Afrique des des nations bi ñu ngi daje nag équipe boo xam ne itam seen naataango Madagascar ñoom def nañ seen i preuve def nañ seen i preuve euh, ba ba toll fii dégg sax seen entraîneur bi mu naan euh, Sénégal mooy euh, favori ñoom jàpp nañu Sénégal mooy favori mais itam dañoo ñëw pour football pour gagner comme waa Sénégal te yenn saa yi xool ay détails la match di changé ci ay mm-hmm. détails la beneen équipe di profito pour gagner beneen équipe kon daal ñu ngi ñaanal ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu. gaynde lu koy eh, ñu am ndam incha allah <laughs> si waa Madagaskar deux mille vingt deux bi ni woon <laughs> eh, ci ci plan sportif surtout football ci Sénégal mhm. lii deux mille trois tam ubbeekoo noonu eh, incha allah mhm. jërëjëf Bour Sine si éclaircissement yi nga ñu indil tey si loolu ñu bàyyi la nga tàggatoo ak internet yi euh, Asel maa ngi lay jaajëfal wante nag du man kese ñun ñaar ñoo ko ñun ñaar ñoo ko seqoon yooyu tam def ngay jàngat yoo xam ne am na am na am na solo lool comme comme ni nga ko waxee rek amoon mbégte ak kontaante bu baax a baax di ànd ak euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, internautes yu seneinfo point net ak seneinfo international di leen wax rek ñu wéy di ñu topp ci suñu différentes euh, plateformes yi kon di leen jox daje ëllëg rek ci même waxtu yéen a ngi woon si seen yor-yoru seneinfo ñu di leen jaajëfal bu baax a baax si teewlu bi di leen jox dig daje ëllëg incha allah.